asalaamaaleykum fu waay mën a féete ci àdduna bi tey doomi Sénégal nu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di la dalal ak jàmm ci sa kanamu télévision Futur Média bànneex la ñuy am mbégte la ñuy am saa su ne bu ñu xamee ne yéen a ngi toog jàkkaarlook ñun moo tax it nu ngi leen di nuyu bu baax nuyu suñu président directeur général ak mbooleem directeur waaye nag du fàtte benn yoon ñu yàlla dogal ñuy xëy si ci biir kër noo ngi leen di beral nuyoo bu baax a baax boobu nuyoo itam daan ko wërale ci dëkk bi dem seeti kilifa diine yi yeeg yu aada yi noo ngi leen di nuyu di leen jox cër bu baax a baax a baax macha allah di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen jàmm yàlla defal leen yokkute may leen tawféex waaye itam bu nu noppee dina nu sàkku ci yéen ñaan noo ngi sàkku ci yéen ñaan waaye jaare ca itam di ziar ñi nga xam ne ñu ngi ci hôpitaux yi cliniques yi ak dispensaires yi te nga xam ni yaram wu sutante moo leen fa bàyyi ndax bu doon mami Linguère la xam naa ne noonu la koy waxee noo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wax rek massa leen coono waaye tam di féliciter ña nekk à leur ndax àdduna boo ci nekkee di dox sa soxla di nga soxla ku la gunge sàkkatumaak nga tëdd nag feebar mënaloo sa bopp waaye ñu ngi ñaan yàlla mu defal ñépp jàmm macha allah ñuy nuyu itam wax dëgg yàlla ñi nga xam ne caabi daf leen leen a féete gannaaw noo ngi leen di ziar di ñaan yàlla seen toogaay foofu yàlla doon njëriñ ci ñoom bu ñu fa génne itam yàlla na yokkute dapp leen bu soobee yàlla am na ñu yaakaar ne suñu borom dana ko def képp koo xam ne rek yaa ngi ci tiis ñu ngi lay massalu bu baax a baax a baax di la massawu di la wax na nga muñ àdduna moo ni mel ku fi ne nag ku ne fii di nga ñam ci yi fi am yi fi am mooy les hauts et de la vie kon bokk yàlla yàlla faj aajo yi yàlla tàppe xol yàlla jubóole ñu macha allah may wax Mami Linguère bisimilah dalal ak jàmm ci émission wareef Ndoye Bane yow itam dalal ak jàmm ñu ñaan ak ziar sunu maam di ko ñaanal yàlla yàlla yokk leeraayu bàmmeelam maam Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum noo ngi koy ñaanal macha allah yal yàlla taas ci barkeem noonu la ñuy nuyoo ëttu këru diine yëpp li ngeen ndax nun duñu bàyyi fenn ñu ngi jëm eh, njaareem ña nga jëm Tiwaawan ña nga jëm Touba ah ñu ngi jëm ca njàmbur njàmbur ya bawunu kenn waa kër sëñ daam itam nu ngi leen di beral waaw waa Lambaay nu ngi leen di beral nuyoo bu baax a baax a baax waa kër maam bu ah sama sama dëkk yaay ah ñu ngi ñu ngi ziar borom Ndiassane bu baax a baax a baax a baax macha allah soxna li bi bisimilah. waaw xanaa li ah. mhm. yaa rabbal alamin

ji ay <laughs> <laughs> euh, a <laughs> euh, ci loxo Koumba Mbour Samb naan ko egsi ak jàmm ak salaam waaye maa ngi nuyuwaat ñëpp itam waa Sénégal kenn gënu leen sama bàjjen Awa Diop nee delluwaat na déggaat lool lool lool barakallah macha allah euh, taalibe Cheikh Bass Abdou Khadre Euh, maa ngi lay nuyu bu baax ndax xam naa ne téléspectateurs yi bu nu bàyyee xel dana danañu gis ne damaa commencé ak ay reetaan waaye ku toog ak yow faw dana reetaan. Mhm. dama doon bëgg loo def rek minute par minute rek ñu ma lay tegal ci télé bi mu ne fang. ndax sañ naa toog fii di xàqataay du ma du ñu xam lu may xàqataay booba yaa may bëgg a rey. bisimilah <laughs> non non non gars yi seetaan wala lay xeet yu lay non nii xam na ni man gis naa nii lu mu doon. non nu muuraay bee rafet rek <laughs> muuraay bee rafet fi mu nii ñëpp kontaan nañ kilifa diine yi kilifa aada yëpp kontaan nañ ci yow mën ñëpp kontaan nañu ñëpp ñëpp yàlla kontaan na yonent bi kontaan na <laughs> kilifa diine yëpp kontaan nañu. ndax lii ñii seetaan nii lañ ko bëggee. waaw te xam naa ni sax nee nga ma sànq dootoo ko bàyyi te ni nga wo defee nii vraiment ñëpp kontaan nañ yuusu yuusu kontaan na Alassane kontaan na Mamadou di Kane ak ñoom Birane ñëpp kontaan nañ ci ni ngeen muusoo parce que bopp bopp kese moom dangay ngay waaru <laughs> ginnaaw ba ñu ñuy ziar kilifa diine kilifa yi ci réew mi di leen ñaanal ñu yàgg fi lool te wér <laughs> di ci jiital sama sëriñ ba Cheikh Bass Abdou Khar di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér moom it mook taalibe yëpp di ziar eh, ki nga xam ne moom moo di sëriñ Moussa Cissé ca Pire ah, sunu xalif boobu di ko jaalaat su sunu su sunu sëriñ boobu sunu papa jooju sunu sunu sunu sëriñ sunu papa um, kii euh, sëñ Amadou Cissé. Mm. di nekkoon porte parole euh, famille Cissé ca Pire. dëgg euh, ñu ngi koy ñaanal rek yàlla na ko yàlla xaale àjjana. di ko jaal sañ moom moom paraa ji bi Diagne monsieur le maire Serigne Boub. Mm-hmm. ak sunu imam ba sëñ Moustapha Ka di ko jaal sëñ Amadou Cissé di ko jaalaat soxnaam soo su wàññiku di jaal ñëpp ñi nga xam ne daal ay doomu piir lañu ak ak ay jullit ci réew mi. Mm-hmm. di nuyu nag sama ay grand yoo xam ne yow soxna si. tur yi ma leen di waaju wooyee wax dëgg yàlla dañ koy bañ ca dëkk ba. ay grand la ñoo xam ñun bi ñu màggee dañoo fekk ñu am ñu leen di wooyee tur ku ci mel ni sunuy grand lañu wax dëgg yàlla Pape Ndiaye yax te tur ya ñuy bañ def ci nga fas yéene jaar tey ci suba da nga xëy nekk en forme non non nekk du dama leen na nam rek maa leen Pape Ndiaye bëggul yax waaye di nga ko ci def waaw Pape Ndiaye yax lañ koy wooye Pape Ndiaye yax maa leen ñi ñing ñu naan ko ndare d'accord am na ku naan njugub am na ku naan nice bari nañ daal ñoon ñëpp maa ngi leen nuyu tur yooyu gars yi namm nañ ko xam nga dan daan football waaye tur yooyu lañ daan wooyee Pape Ndiaye yeex ndare ak njugub ak yeex moom xanaa dafa mënoon a seeñu yeex dafa sew ruuj Oh. waaye su su la waree ginnaawam pare nga. njugu fu mu wekku nelaw fa. waaw njugu moom nopp yi nee na nopp njugu xam nga rek ñoonu ñoo samay gannaaw lañ daal. waaye xanaa mm. a a grand yu baax lañ samay grand yu baax lañ waa dëgg yàlla. xam naa ne ni nga xëyee loolu mooy sa jigéen bi toog Evatra di nga ko yee par force laa xam mm-hmm. da maa seen may ñëw nga ni ma tey faw danaa reetaan <laughs> mbokku téléspectateurs yi nii lay demee itam ci biir bureau yi ndax xam ngeen ne léegi saa yi nga dugg ci bureau doo nekk en forme waaye ña nga fay fekk ñooy tax nga bëgg mhm. kon bokk yàlla na ànd yàgg juboo yàgg nii rek la war a mën a demee ay nit bu ñuy ànd dañuy sekk lu rafet di ko seddalante di ko waxalante mhm. ñun itam moom la ñu sekk ak moom la ñu sekk waa Sénégal yëpp Sénégal yëpp nekk benn ñun ñëpp benn lan fan yi ñu jógee rek mu am loo xam ne dafa tegewaat suñu kaw dañuy nangu ndogal rek di wax alhamdulilahi rabil alamin mhm. ak lu mën di am noonu rek la ñuy mën a def waaye nag ñu ngi ziar ak ñaanal yàlla képp koo xam ne rek mu ngi toog di seetaan ñi nga xam ne itam ay waaye dawlu lañ ñu ngi leen di ñaanal fi ñu jëm yàlla na leen gënal fii ñu dëdd ñu ngey ñaan yàlla suñu borom mu àtte leen ci njéggalam ak dem bu nu waxee loolu xel dafay dem ci dàq gi ren mhm. moo tax it euh, faaw dinañu toog rek tënkaat waxtaan bi sottante xalaat def ay témoignage daal dee rafetal loolu rek moo nu tax a jóg mhm. ubbil nañ leen suñu ay antenne ngeen présenter seen ay condoléances ndax dañoo nekk en deuil te bu nu nekkee en deuil li ngeen dañuy fàttali ñi nga xam ne ñoo fi jóge ànd ak ñaan yàlla yi ñoo def dëgg la dëgg la ci barke sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam dëgg la dëgg la kon bokk soxna waxtaan waa ngoog mhm. inspecteur mhm. waxtaan ñu dal yàggul dara métti mhm. ñu maa ngi koy wax démb ma ni dama ragal situation bu dikkee rek ñu jël ko teg ko ci ndodd benn nit ndax loolu dafay rëy lool ci moom nañu gën a rek jël suñuy matuwaay gën a gën a defaraat ba nga xam ne ndogalu suñu borom bu dikkee duñ ci mën dara dañuy xam ne nii la demee waaye duñu trouver daal ay accusation yoo xam ne ñu ko defante suñu biir ah rafetluwuñu ko nanu gën a góorgóorlu gën a rafetal lu rafet nañ ko yokk rafetal waaw sant yàlla li ma waxoon démb laa lay waxaat rek sant yàlla mm. ak jullit su ko lu metti dalee dafa war a sant yàlla ndaxte waroon na naroon na fee gën a metti dëgg la ndaxte dangay dégg ñu naan eh, su gënee yàlla na ko yàlla def su fekkee lii moo gënoon ci suñu askan wi mm. yàlla def na ko te yàlla na yem fii dafa dégg naa nag kilifa yi di ci waxtaan sànq maa ngi seetaan le président mhm. mu ci mu ne mu demoon fa doon waxtaan maa ngi ko dégg muy wax mhm. mu ni di foofu dinañ ko defaraat mhm. defaraat ko ba mu ci ayib ba nga xam ni yu mel noonu dootu fi tabax defaraat ko comme ni mu defaree këru diine yëpp même su fekkee dégg naa yu bay ñu naan ñoom par exemple yu authenticité bi moo leen ci àll bi moo leen ci gënaloon mais ginnaaw àdduna te président dem na fa waxtaan ak ñoom te na foofu dina ko defaraat ñu ngi su ko ñu ngi su ko defee Sénégal gépp dinañ kontaan ci mhm. moom mhm. parce que bërëb la boo xam ne Sénégalais yépp a ko bokk ku ci mhm. amul mbokk am nga ci xarit wala nga am ci dëkkandoo donc yooyu noonu wax dëgg yàlla ñu ngi ko ciy félicité moom gouvernement bi yépp ñu ñaan rek ñu daal di songu liggéey ba mën koo defar ba nga xam ne su déwénee dinañ fekk nag euh, foofa yem waaw moderne ba nga xam ne dinañ ci dëkk dëkk bu bu bu bu am bu am solo tamit di jaalaat xalif ba xalif ma di ku ku mbooloo mu tool tool noonu topp uh-huh. ñu yaakaar la euh, fii ak fële uh-huh. waaw kooku dañ ko war a ñaanal mu mu mu mu yàgg fi loolu te te ba mbir mi ba te mbir mi ba amee tamit mm. kàddu yam ci yëkkati mm. dal na xel dal na xel parce que waxaat na taalibe yi ni leen euh, sant leen yàlla euh, ndogal la boo xam ne mënul woon a jaas euh, nit ki fa nga war a faatoo rek ngay faatoo mmh. na nga war a faatoo ngay faatoo mmh. bës ba nga war a faatoo doo ko weesu donc moom moom moom mooy mooy mooy lii soo gëmee loolu rek mmh. di nga xam ne loolu la wax naa la ko fii mun naa gënoon a garaaw fopp te dañoo sant dañoo sant jullit yu yëpp nekk fa dëkk bu nekk am na am ci am ci wàllam looloo gënoon garaaw accident yaa ngi nii di am bis bu ne ci dëkk bi te soo compté lii faatu ci ci ci tali bi par mm. weer mm. kenn xamu nu mu toll mm. donc ñuy ñaan rek ña fa faatu yal na leen yàlla xaare àjjana ña ca ña ca blessé yal na leen yàlla yëkkateeg jàmm eh, su ko defee kilifa diine yi di ñaan eh, kilifa aada yi di def la leen war a def Sénégal daal di daal di jëm kanam doy baan man booy wax loolu damay remonté sax ba ci batolo Joola di nga ne ñaari mbir yi bokkul mm-hmm. waaye lépp rek ci yar ak yeete mm-hmm. ak dolleeku ndax di yar di yeete waaye dolli ndax saa booy wax mbir nit a ngi toog gën laa xam li ngay wax. Mhm. kooku ku ni mel bu wootee dafa lay yokk. moo tax ma ne nañu gën a bàyyi xel sunu ay yëf. li ngeen lekk say kaar dana romb surchargé ba nga tiit. léeg-léeg nga gis bu sunu xaritu mbër yi di bëre. kaar yi romb surchargé ca kaw xale ya nekk ca kaw mu leen la ne ni. ku daanu rek ah li koy dal du neex kenn. nga dem ci bërëb bi tam gis ne bërëb bi. gis nga ñun ba ci sunu ascenseur yi. bu ñuy dugg ci ascenseur du ñu xool nombre nit yi ascenseur bi war a jël. mais ñun dañ ciy surchargé wu daf ñuy mais nañuy dem tuuti di doxalin di doxalee doxalinu tubaab yi la ndax ñoom dañuy dem ak ay normes uh-huh. dañuy dem ak li jaadu uh-huh. ñu di ko def pourquoi ñun duñu am boobu culture uh-huh. loolu bokkul nag ak dàkk bi bokkul yàllaa dikkal boppam waaye maanaam ñu ci ci yar ak élargir yëf yi rek xam nga dañ eh, mooy li ñu wax démb rek su mbir ñëwee hmm. doo jël mbir mi rek yemale ko ci mbir mi ñëw da nga ciy waxtaan ci wees hmm. ak yi dikkagul ndax àdduna ñett la dëgg la démb la woon tey ak ëllëg te xam nga lu nekk rek boo ci waxtaanee xëy na ñi ko doon def dinañ ci war a mën a gis seen bopp pour bàyyi loolu dama daan tooñeen dooy baan naan ko sénégalais yi bonul sénégalais waxut ak ñoom ndax koo wax ak moom xëy na mu dégg la xam nga li ngay wax nii ci ascenseur da nga gis koo xam ne day ñëw mu war ko ne ascenseur bi fees na mu gis ñu nata ca kaw ko ne huit personnes la war a jël maa la ko wax mu buuxante te moom mooy dixième bi waaye day dugg mooy dixième bi ba pare te day buuxante nga ko mun la damaa yàkkamti boo xefee mun la fi laay liggéeyee ah. dossier bi ma yor dafa war a dem daal di buuxanteeg yow yàlla bu muy jamonoy tàngaay ngeen xat ñaq bi nekk ci biir su ascenseur ba nee kacc te fekk moom huit la waroon yóbbu yéen déjà nekk ngeen dix dugal ngeen ci yeneen ñaar ñoo xamante ne bokku ñu ci woon mm. mu tag ca kaw coono daal di nay ñëw mm. xamoo leen kan moo ciy fatt xamoo leen kan moo ciy leneen mm. su jëyee amee ñu daan ne bi lay ndogalu yàlla la moo tax nee naa gis nga saytaane itam dina mës a jëlu yet nag wàcc fii duma sénégalais yu bare bare moom saytaane waaw nga gis nga gis tey boo demee fii ci Abidjan ah. su biis yi dee ñëw da ngay gis ne nit ñi dañuy taxaw ci arrêt bi dañuy rang c'est fu benn nit bi nga xamante ne place bi mujj fu benn nit boobu yéegee doo gis keneen ko avancé waat mhm. fi mu taxaw lay taxaw ba beneen biis ñëw mhm. mais ñun sénégalais dafa mel ni xëccoo buuxante mhm. ba ma xante xoolal Sénégal booy saraxi taalibe tegu paan ñetti taalibe ñëw sax dañuy ba ma xante c'est vrai dañu dem ba dañu mel ni comme ni xëccoo ci ñun la bokk. Mm-hmm. booy dugg ci oto bi mu wóor na yow oto bi mënoo toogee fukki place ak juróomi ci nekk. Mm-hmm. ngeen nekk ñett nit il faut ngeen buuxante. Mm-hmm. xale yu góor yi daal di jël seeni loxo dóor mag ñi mag ñi daanu. booy wàcc ci bus bu la jëlee wala car rapide. bu la jëlee ci arrêt bu lay jël day taxaw ne ba jeexal tàkk. ndax sa xaalis lay xaar soo yéegee booy wàcc booy teg sa tànk apprenti bi fëgg na boo daanoo ci tali bi yoonam nekku ci kon yooyu yëpp yu jara waxtaane waat la bis bi itam mi ngi dem di romb fan la jëm làmb ji la jëm xale yi ci nekk man dama yaakaar ne xëy na dañu inconscient parce que mm-hmm. nit du du du ànd ak xelam mm-hmm. di def yenn yi xoolal tey bu lu mel ne tey bu ñuy màggali mm-hmm. danga nga gis xale yoo xam ne dañuy yéeg ci kaw kaari ñuy yéeg ci kaw njëmbadi bu ñu eggee ci garab gu mag lu ñuy wax waaf leen waaf dara ñu wut ay karawaas di dóorante. xale yu waaf. loolu ñaata nit la ñaata xale la ci ay garab rey. du ñu jeex biñ ko miinagulee. wala ñu dem ba ci àll bi ñu wàccee leen ci àll bi di leen laaj paas ku amul paas ñu bàyyi la fa. Mhm. dafa dem ba dafa mel ne sénégalais moo bëgg lu metti dafa dem ba mel ni sénégalais dafa dem ba bëgg sonal boppam dafa bëgg daal moom ñu ne ko déet daal lay bañ. sénégalais bu ko tere dara lay bañ. sénégalais de day bañ déet. gis nga soxna soxna Bali Muntaxa nu ngi koy ziar bu baax. ñu ngi koy nuyu lu bëree bëri. Euh, daa dee jaarale nag nuyoo bi ci loxo Ndeye Soda Gueye sunu xarit. Mhm. Ndeye Soda Gueye daal contrat bi mu signé ak Evatra ma nga ca France. Uh-huh. Evatra du ko wax ci télé bi ndax ñëpp dañu koy dëggal moom la ñuy jàppale. gis nga gis nga li oustaz Cheikh Gueye nee na fa nga teeree sa waxtaan fa nga dikkee. Mhm. kontaan na ci lool. la nga waxoon nag jarul dellu si waat waaye nee na kontaan na ci yow. waxate woon lu mu doon ba nga ba nga xëyee loo ma wax. waaw loo ma wax nee moom mi ngeeg yow. waaw muuraay bi ñëpp ci ànd ñi bëgg lu baax ñëpp ci ànd. Ah. ñu bëgg lu baax ñëpp kontaan nañ ci yow kontaan ci mam mi ni ngeen koy doxale nii vraiment kilifa diine yi xam naa doo leen leen rusloo ndaxte nii moom vraiment rafet na jekk na gi li nga wax sànq li nga wax sànq surcharge lamb ji dëgg la de dëgg la lamb am gars yi jàll ay jël ay kaar mm. chargé ci doom doomi jàmbur ci kaw bu ci mm. suuf di mm-hmm. romb autorités yi ci tali bi di mm-hmm. romb policiers yi ci tali bi ak gendarme yi mm-hmm. kenn du wax oh, oh. ña ne ak seen yaay ak seen i papa ñoom laa yërëm oh, xalaat xaw ma yow mbër maa man c'est man ni may xalaata na rek mbër maa ngi nii yàpp dugg ci kaat kaatam billaay ñu fay ko million yi bari mu ànd ak sécurité ñu dem escorté ko ba ca làmb ja dara du ko jege yow ñu nokkas la ci ay kaar ba mu fees ñu aj ca kaw uh-huh. soo ci daanoo soo deewee mbër ma sax du la seet si uh-huh. comprendre nga uh-huh. mais loolu duñ weewu tuuti temps yi passé am na lu xewoon grand théâtre am sama benn xarit ne ma booy doo ñëw ñu dem grand théâtre man ko man samedi damay liggéey yi mun ma noo nen dem grand théâtre peut-être expliquer expliquer temps yële man ko saay ñay dem grand théâtre ña organise dañuy liggéey man damay liggéey nga bëgg man ma bàyyi sama liggéey dem fekke ñee la ñuy liggéey pour lan. ñoom itam mbaa bu ñëpp ñëwul woon dana baax. de man néew ma sa philosophie la. waaw ña fay dem pat dañoo liggéey ba wàcc. Mhm. man wàccagu ma. ah waaw waaw. soo liggéeyee ba wàcc la neexee nga dem Grand Théâtre. wax nga dëgg mais man heure bi Grand Théâtre di xew. yow si liggéey la lay fekk man liggéey. lii nag dogguma la noonu ngay gisee koo xam ne màggal wala wala gàmmu dafa jot. waaw mu bàyyi fa liggéeyu patron. waaw daa dee dem ca màggal ga wala ca gàmmu ga. waaw ma ne ko xam nga ne Serigne Touba waxu la lii. te amul permission Maam Malick waxu la lii. te amul permission da ngeen di bàyyi euh, waaw waaw. te amul permission wallaay dëgg soo amee permission mën ngaa dem. wallaay man ko waaye mun ma yow bandar yow yow ni ngay xalaatee dafa doy waar. Hmm. yow ni ngay xalaat jàppee àdduna bi man ko jàppee ma àdduna mais xoolal hmm. ndax man dama war a bàyyi sama liggéey bii may def hmm. yaakaar cee dund ma bàyyi ko ñeelee ñuy def dañ ci yaakaaroo dund nga bëgg ma bàyyi sama bos topp bële c'est la même chose que gën tamit yow yaa ngi xool borom kaar borom làmb ji ki mbër mi mi ngi dugg ci kaat kaatam yow ñu nokk jël jël ay doomam teg fële jël yaayam teg fee jël papam teg fee yow ñu jël nokkal na ci ay kaar soo ci uh-huh. dee kuy perte du sa yaay sa papa ak yow uh-huh. soo ci jëlee laago looy wax uh-huh. c'est la même chose ak ak politique yi ñu jël leen dugal leen ci ay kaar ah aj leen ci kaw soo ci daanoo looy wax c'est la même chose que marche yi di xew ci dëkk bi ñi leen di woo marche ñëpp di xeex ak policiers yi dañ nga ciy gis kenn ku jiital jabaram wala doomam mm. oh, oh. seen jabar yeeg seen doom yi ñu nga réew di jàng seen jabar yeeg seen doom yi suñu feebaree bitim réew la ñuy fajoo di oh, yow ñu yow yow yow yow ñu nguufaan la yóbbu la yóbbu la fële ca place ba su policiers yi sànnee affaire su la ana Mamadou Diop tey ji politiciens yi fàttewuñ ko ko. ana policier ba fa daanu woon. fàtte wuñ ko. Ah, ña fa dee ñëpp fàtte na leen ñoom ñëpp. donc lu waay di def da nga war a utiliser sa mind sa xel mii. yaraat sa bopp am na ñoo xam soo leen toppee dañ lay rey ci àll bi su la rey ci àll bi yaay perte te du leen tere continuer di politique seen politique wala du leen tere di continuer seen euh, bëre seenu bëre mhm. wala du leen continuer def seen i def mhm. nit dangay ànd ak sam xel sooy def dara mhm. man loolu laa ma dugg fi topp benn politicien ñu may ñu di di xeexati poli ay policier pour lan mhm. ma am soxna am njaboot am am ñu yaakaar ci man yow nga yor sa 4K su affaire ne pour nga dugg ci 4K yi daw suñ la jàppee mën nga koo lijjanti man suñ ma jàppee mënu ma koo lijjanti mhm. suñ ma yow suñ la blessé man ngaa dem bitim réew faju ji faju ju gaaw man suñ ma suñ ma blessé pour ma am 5000 mhm. francs boo ma fajoo problème la mais nit ñi nañuy xalaat dëgg la catastrophe yi dafa bari ci dëkk bi de. genre uh-huh. catastrophe yooyu. dafa uh-huh. bari ci dëkk bi te des fois ñi leen koy teg. Uh-huh. ñoom duñu fekkee daal waaw duñu fekkee coow li voilà bokkut ak li nga xam ne moom moo di euh, daaka bi nga xam ne yàllaa ñëw mm-hmm. ay nit yu doon jaamu yàlla te kuñ ku ci nekk nag soo soñoon sooy faatu faatu ci jaamu yàlla ca laa jëm démb yaa ngi koy wax ndeysaan nee nga ñooñu nañu sant yàlla ndax fa mm-hmm. nu génnee àdduna mm-hmm. alxuraan bu tedd gi lan fa doon wàccee nit gaañu na ci bërëb boo xam ne kenn bëggul sax di koy fàttali moo tax dañuy daal dee dem ndax xam nga ne bi mbir mi amee itam am na sunu ay kilifa diine kilifa aada yi sëriñ si def nañu ay déclaration dañ leen di déglu ak cofeel bu rëy wax dëgg yàlla ndax di leen déglu daf ñuy yokk nañu déglu sëñ Abdoul Aziz si alamin bu ko defee rek ñu ñu ñu daal di dem à la régie euh, daal di dégganteeg Pape Samba amaan na mi ngi nuy dégg jullit ñuy déglu ak bokki taalibe yi nuyoo rajo bi di leen yëgal ngir moo xam ne noog yéen ko bokk depuis ay ata ngi ñu di ko seq ak yéen mu di gàmmu jag saaw di ko seq ak yéen di leen ko yëgal ñu leen ko war a yëgale ñu ngi fas yéene defati ko incha allahu ko daan defe muy seen gàmmu yéen ñëpp di gàmmu jullit yëpp événement bi dafa xaw a sant Ndiaye ndax nu ngi ci doon seen sunu sunu maam sëñ Abdoul Aziz Sy Al Amine xalifa général de Tidjaniya waaye nag xam naa dañuy daal de dellu dellu ci beneen élément ak sëñ Bass Abdou Khadre sa sëriñ waaye dund ci bàyyi sunu sëriñ <laughs> macha allah. Uh-huh. Mm. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñi ngi jiital ci nuyoo bi ak bi Cheikh Mohamed Bachir mii nga xam ni moom la Cheikh Sidil Muxtaar yàlla na fi sunu borom yàggal te wéral ko ak njaboot Cheikhul Xadim gi yëpp moom la wax ni moom mooy ay gëtam moom mooy ay loxoom moom mooy ay tànkam moo yor baatam ni nañ ko ko jàppal bu baaxit kon ñi ngi ñaan sunu borom yàggal ko te wéral ko sëriñ bi nag wax ko ni que lii nga xam ni dafa xew te lal laal jullit yëpp jullit bu nekk rek ci biir réew mi rawatina biir Sénégal xam nga ni fan yi sa xol neexul ndax lee nga xam ni moom moo am ca Dakar ba mbokk yu bare faatu fa ba tey jii rek lim baa ngay yokk ba njiitu réew mi sax wax nañ ni décrété na ñetti fanu deuil national looloo waral ni mu ko baaxoo defee ci yu mel nii bu amee Cheikh Mamadou Bachir jël kàddu ci turam jël ko ci turu yoonu murid yëpp ak ñi mu bokkal lislaam gi massawu mbokk yooyu ak jaale jullit yëpp loolu moo waral kàddu yi kon ñu teewlu ko bu baax a baax bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin wa radiallahu taala an cheikhina ahmad al xadim ridan la shuqta baadahu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi tedd yi ci réew mi yëpp ñu ngi yëkkati suñu kàddu di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi di bis bi gën ci bis yi di bisu àjjuma ci ndigalul Cheikh Sidi Moukhtar al xalifatul am li tariqatil muridiya di ñaan suñu borom mu yàgg fi lool te ànd ko wér ba naal yi nga xam ne am na ko ci lislaam am ko ci yoonu murit suñ borom may ko kattan ak wér ba lépp mu mottali ko ci wér mu jox ñu ndigal ñu yëkkate ay kàddu ci turam ndax moom dafa day fay jëmmi Serigne Touba donn ko te Serigne Touba doon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam baana li kulli man lahu wilaaya kaw nii li xaalixil baraaya aya baana li kulli man lahu maaqulu anna wasilati huwa rasulu sëriñ Tuuba nag dafa doon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo tax itam ñëpp xam nañ ne lépp lu mu di ñaan lu ne jullit yépp la koy boole mosu cee xàjjale kenn moo tax boo delloo ci ay mbindam am na fa fu mu ne li may ñaanal jullit yi nga xam ne dañoo aju ci man moom laa ñaanal jullit yi nga xam ne ajuwuñ ci man yaa malikal mulki yaa man jalla an xawarin irham jami alwara la ci teg kon fu mu mas ñaanal rek jullit yëpp la ko boole wa chaal qulubana ala tawaadudi bila tanazuin wala taxaasudi wala taxaasumin wala tadaaburi wala tabaaxudin wala tanaafuri xataa nasira muslimina xaasiin wa muminin muxlisina saalihin fu mu mas di ñaan rek jullit yëpp àndandoo nekk benn lay ñaan ba boo demee ca biir xasida ga niñ ko baaxoo xamee ñëpp xam nañ ne dafa mujj nekk awkaa julli yi digganteem ak seen borom fa innahum in asawka yaa ahad li xaflatin lam yushriku bika ahad wa innahum abdaanahum laa taqdiru ala balaaika li doon fi ñesam kon foofu mu nekk fa taxawaayu jullit rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ku ko donn di défendre jullit yëpp di ko xamal ne ko donte ñi ngi lay mooy itam na nga xam ne bokkaale wuñ la mukk ndax xam ne yaa leen bind doy di doomu aadama nag moo leen jàpp ci biir loolu nag xew-xew yi daa am dégg ngeen ko ci Mauritanie ba mu fa amee am naar gént jërëjëf ñu ngi remercier bu baax a baax euh, kilifa gi sëñ Bass Abdou Khadre waaye ba tey rekk euh, ci déclaration yi am ak njaal yi am dañuy daal di dellu rekk dem seeti Cheikh Omar Tall mu Thierno Bachir Tall xalifa omarien yi bu ko defee nu dellu si waat ci plateau bi. min alsheytaan alrajim rabbi srax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli gannaaw bi ñu sante yalla julli ci yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa ñu ngi nuyu réew mi yépp di leen baalu àq di leen ñaanal di leen ñaan ñaan ñoo ngi yëkkati kàddu ci turu xalifa kër marul cheikh umarul fuutiyu ceerno muhammadul bashir muntaga taaha cheikh umar euh, ku gis sama kàddu dina xam ne am na lu xew lu xew li lu mu doon li yàlla dogal ci jaamu yàlla yi nga xamante ne ñoo nekk ma dina Gunaas nga xamante ne suñu xalifa bu baax bi moo fa nekk ñu nekkoon Madina Gunaas di fa def seeni mbir yàlla atti am jiya safara bu am doole ñëw fekk leen ci jaamu yàlla bi ay wa alhamdulillahi rabbil aalamiin rey ci ñu bari loolu nag jullitu réew mi yépp yépp yépp yépp ñu ngi massawu Madina Gunaas ñu ngi massawu xalifa bi ñu naan qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun ñépp ci yàlla lañu jóge ci yàlla lañuy dellu euh, ñu ngi Thierno Bachir mu ngi jaale mbooloom ñi gaañu di ko jaale tamit Thierno Ahmad Tidiane bi nga xamante ne ba bi nga xamante ne mooy xalifa ca Madina Gunaas ndax xam ne lii dal foofu jullit ñépp la dal dal na kër Cheikh mar dal na tuuba dal na Njaasaan dal na Laayeen dal na Ñaseen ñépp bokk tey e am am mettit waaye mettit boo xamante ne li yàlla def kenn mënu ci dara danga koy nangoo yàlla rekk te bépp bas bakkan bu mësa a dund dinga mësa a dee comme ni koy borom bi waxe kon nag Euh, ñu ngi leen di jaale xalifa baa ngi leen ngeen jëf macha allah ba tey rek ci njaal dañuy daal di dem seeti waa kër Cheikh bu Mouhamad Kunta bu ko defee ñu daal di dellu si ci plateau bi. bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbi bokki jullit yi bokki Sénégal asalaamualeykum wa rahmatullah kannaaw eh, bi nu sante yàlla subhaanahu julli ci ngeen ñi mbindéef alayhi salaam di leen ziyaara di leen nuyu ci kàddug xalifa bi alxaaji maam bu Mouhamed Kunta di xalif général Qadiriya waaye di zaim ruuxi lil usratil kuntiyatil binaamiya toog ci njaasaan joxe ndigal ni ko nawleem yëpp defe ngir ñun tamit ci sunu wàllu ahlul kunti ak lu aju ci tariqal Qadiriya ñu wane ñun tamit li nga xam ni yëg nañ ko ci tiis wi nga xam ni wàcc na ci kaw senegal wàcc ci jullit yi wàcc ci àdduna bi sax laay wax muy loo xam ni ni ko mbokk yi defee fan yi yëpp te sëriñ bi nee na ñoo ñu wax ñëpp ku ci ne waxaal leen ko ko muy kàddu yu rafet yoo xam ni doyloo na ko it <coughs> waaye dafa fekk ni mbir mu toll nii bu amee dana rafet ku ci ne ñu dégg ci kàddoom waaye doyloo na lépp li nga xam ni bokk julli yi wax nañ ko su ko defee nee na àdduna noonu la yàlla it waxoon na ko ci alquran wala nabluwannakum bi cheyin min al xawfi wal juuci wa naqsin min al amwaali wal wa thamaraat wa bashir alsabirin alladina ida asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kon nee na mu ngi ànd ak jullit yëpp di wax kàddu kooku di inna lillahi wa inna ilayhi rajiun xam ni yàlla waxoon na ko démb ni faw bis dana ñëw ni mu ñu sàkkewoon ba bàyyi ñu ci kaw suuf bis dana ñëw mangook mbokk yi ñoo ko gisandoo ndax euh, nii rek la mën a demee wala la war a deme gis nañ ko sunu ay kilifa diineeg sunu ay kilifa aada indi nañu seen jaal bu ngeen di xool waa Ndiassane bu ngeen di xool waa Nimzaat bu ngeen di xool waa waa waa Kaolack ñëpp présenté nañu njaal euh, ndoy baan mm-hmm. mm-hmm. nii rek comme ni nga ko waxee nii rek la mën a deme mm-hmm. euh, xam nga soo leen bokkee loo xam ne mun leen koo séddoo nii rek la mën a demee ñi leen di ñaanal ñii ñoom ñëpp yàlla nañ seen yàlla na leen fi yàlla bàyyi ba ndaxte njariñu njariñu réew mi lañu mm-hmm. que ñun ñëpp soo jokkuwul fee fee nga jokk mm-hmm. te ñoom ñëpp ñoo bokk fu ñu jokk donc daal mm-hmm. eh, ñi di ñaanal bu baax a baax rafet na parce que ñoom suñu suñu deful woon ñu laaj leen ko nii nii rek lañ mën a mel ba ci église bi ba ci église réew mi yëpp kay ñëpp nii li genn genn kàddu gi la kon boog ñuy rek ñu ñu leen di wax rek ñu ñaanal ña nga xam ne ñoom ñoo daanu foofee ca ca ca ba te ñaan tamit yàlla na fi gëj wax dëgg yàlla wax yi kàddu yi rafet na wax dëgg yàlla ñëpp rafetlu nañ ko soxna Eva soxna Mamy Linguère wax bi benn la xam nga lii moo lay wan ne Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar dëgg la te xëy na ñun ñoo yëgoowul waaye ñoom kilifa yi ñu ngi yëgoo bu baax a baax te li jàngat bu rëy rëy la mooy lu ci laal kenn rek ñoom ñëpp ay jóg taxaw ku ci nekk indi ci sa wax bu rafet sa demlante sa dikkalante te xam nga damay faral di la wax fii ne ñett yi defaru mbokk benn du ci sax karaw muy làmmiñ mhm. ak diggu loxo ak ndëggal tànk ah, ndax bu fekkente ne sa mbokk yaa ngi koy waxal lu rafet di ko waxal lu baax mhm. bu xewlee nga yëkkati def ci la nga mën bu amee yitte nga jóg dox ak sa tànk dem fekki ko mhm. kooku yaakaar naa ne desee la too ko dara kon daal mënuñu lu du sant suñu kilifa yi ndax wan nañ ñu yoon bu baax a baax a baax a baax waaye xam nga tamit lii yëpp dafa indiwaat rek jàngataat que ne Sénégal nañu delluwaat booloo mais comme Assane doon wax mooy que gouvernement bi na yokk jàppale wam am na ci kër diine yoo xam ne commencé nañoo tabax xëy na yenn centre yeeg yenn kii yi waaye man li ma gënoon a gis mooy fenn fu ci nekk ñu tabax fa benn saal bu mag boo xam ne dañu naan xew diine wu amati wu nekk wala wu mag wu amati wu nekk fii la ñu autorisé ñu di ko fi defee ndax foofa dina am sécurité ndax ñëpp dinañ fa nekk ña fa war a nekk muy gendarmerie police ak sapeur ñëpp dinañ fa nekk bu ñu nee wéyee xëy na ku nekk dinga mën a jóg dem def sa liggéey bu ko defee yenn jafe-jafe yu du am waaye itam man damay wax ne mbir boo ca bokkee boo ko yokkul yaa ko wàññi ku nekk yaa war a jàppale sab sëriñ te la muy def mm-hmm. yaa war a jàppale fa nga jokk ba seen xëy na lu ñuy mën di def mu gën a woyof ci ñoom ndax sëriñ bi kat la mu yenu diis na ndax bu bëggee di boole di ñaan guddi di ñaan bëccëg jàmmi réew meeg jàmmi yéen ñi jokk ci moom yéen yéen a koy yombalal ab liggéeyam mooy bu ngeen dee dikk boole leen di indi suut di indi seen jëmm di teew waaye lépp lu ñu fay tere ngeen ba ko ndax fekk sab sëriñ te lu mu bëggul nga nekk ca mm-hmm. lu fa xew lu nekk boo ko defut itam génne woo ci sab loxo kooku yar bi dafay daal di des waaw <laughs> jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi comme ni ko yi ak Ndoye Bane waxee waaye nag yéen itam da ngeen caa bokk ndax dinañu leen ubbil suñu ay antenne téléphone bi tijji nañ koo mën mm-hmm. ngeen a dugg saa bu leen neexee ndax indi seen jaal waaye itam ku ci am témoignage rek mu def ko kon damay wax rek mbokk mi ci ligne bi bisimilah salaamaaleykum salaamaaleykum. waaleykum salaam. Baye bisimilah. ñu ngi sant yàlla naa def. ñu ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah. macha allah. man maa ngi wootee Casamance. dëgg la. maa ngi wootee Casamance di jàllee li amoon Medina. dëgg la. ndeysaan. Medina Gunaas. maa ngi leen di nuyu nag di nuyu waa Medina Gunaas. maa ngi nuyu nag tonton Mbaye bu baax jërëjëf jërëjëf. waaw maa ngi nuyu mama mami Linguère. ndeysaan ndeysaan. ak di nuyu mama Ayewa Tra. jërëjëf jërëjëf bu baax nga. di wax ni nag li xew nga léegi na moom ñëpp la moom. Mm-hmm. ndax man mii wax ak yow. jam laa doon jàng waaye keroog bi may gëj a déggante ak sama papa mu ma doon woo di ma naan dama bëgg dem ci. doom bi ñuy am foofu ci nit ña. Mhm. waaye bi mu demee laa ko gis a dégg ba tey ndege bi ma ñibbisee sama benn rakk woo ni ma paa bi déggatuñu ko waaye defe naa dafa bokk ci accident bu amoon foofu mooy lakk-lakk bi amoon foofu. Mhm. Mhm. keroog laa jógee fii ñibbi ma dem foofu. waaye nag li am doy na waaw. est-ce que massa waay ñu ngi la koy jaale. aywa maa ngi lay dégg bu baax maa ngi lay dégg. maa sant bu baax. alhamdulilah. jërëjëf jërëjëf. li ngeen def moom am na solo trop. jërëjëf. bi waaw. kon daal yéen seet ngeen ko gisul leen ko jàpp ngeen ni daal ca dafa des foofa. waaw ndax man dem naa foofu am naa ko trois jours. ba ah Massa. metti na. ce que. Massa Massa Massa. ñu ngi lay masawu bu bu baax man ndax seen émission bi am na solo la ko waa Régis jox ci suuf. waaw moom nag mu ànd ceeg yar ànd ceeg dal ba bëgg dee ah, ndax di am bu doon keneen la ma ngay woy woy waaye dafa nangu ndogal jaam dafay nangu ndogal boo bëggee noppalu dafa metti ah, xam nga keroog maa ngi ko la koy wax fii naan la bu fekkente ne sax dañ ne sa nit jóge na fi génn na àdduna nga gis néew sa xëy na nga sang rob di nga xam ne fii la bàmmeel ba mhm. waaye xam nga koo xam ne da nga ko doon dégg ba déggatoo ko mhm. nga dem di ko seet gisoo ko waaye nañu xam ne li li ma waxoon démb te ndooy waxoon ko rek mooy que mhm. ñun ñoo amuk jaaxle ci suñu bopp ñun ñu fi des te xamuñu fu ñuy mujjee dëgg la ndax kiy dund moo gën a jaaxle ki dem ba pare te dem ci fu neexee yàlla parce que ñun ñuy dund xamuñu kañ la xamuñu fan la xamuñu ndax dinañu fekk ci lu neex yàlla wala lu ko neexul yàlla nañu yàlla taxaw nag ba bis bi ñëw fekk ñu ci la ko gën la ko neex mais nga ñoom dem nañu ba noppi te fañ demee moo leen gënal mag ñi dañu sell mag ñi dañu bëgg jaamu yàlla mm. te foo xamante ne barab bu sell la mm. ah, ah, tund wu sell la mm. jaamu yàlla rek lañu fay def dara lu naqari yàlla amu fa foofa yaakaar naa ko fa yàlla jëlee sa bakkan yow da ngay sant ñun ñoo ñun daal ñoo ñoo jaaxle waaye ñoom yaakaar naa ne ña nga ca jàmm jërëjëf li ngeen jëlal ñu ci ci ligne bi salaamualeykum wa rahmatullah waaleykum sëriñ bu baax bi ñu ngi lay nuyu di la ziyaar ak di la dalal maa ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm. min yàlla nañu ko yàlla boole yow rek la ñuy déglu. Euh, ak waxtu ñun ñëpp ñoo ngi bokk ci kàddu inna lillahi wallahi mhm. wallahi. Euh, xam nga lislaam moom ñaari kàddu la am. Mhm. su neexee dina alhamdulillahi rabbil alamin su mettee ñu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un. Mhm. kon euh, musiba la ñu la. ñu ngi nari la nari la ñaanal ñëpp. amiin. képp ku loru yàlla ak yàlla yërëm. amiin yaa rabbal aalamiin. yàlla ak yàlla taxawu. amiin. yàlla na. sallallahu alayhi wa sallam. parce que daf ne réseau bi day daw ku baax kii boo xawoon a yëngu tuuti fi nga toog rek. waaw maa ngi jéggalu. maa ngi wax waa Sénégal ñëpp yàlla fay tiyaaba. yàlla boole. képp ku fi ñàkk uh, mbokkam di ko ñaanal yal na ko yàlla xaaree àjjana. amiin yaa rabbal aalamiin. lépp lu ñu baale ci ay tiyaabu yal na ci yàlla xajal néew bi lu ñu fekk foofu. incha allah amiin. lépp lu ñu fekk tamit yal na ci yàlla leen seet jaay rasulillah. neexee suñu borom amiin waaye. Uh, di ñaan rek ñun xam ne yàlla la. Mm-hmm. mais yàlla yàlla nag aussi béykat tool uh, nañ fagaruwaat. Mm-hmm. dëgg la lépp lu ñëw yàlla mais après ndogal bi bari yàlla na leen may xel jëlee seen responsabilité yéen tam. dëgg la. mais it nag yéen ñett ñoom. Mm-hmm. maa ngi ñaan yàlla. yëpp luy naan ci Dakar lu baax yàlla na ci am si ngeen toog. amiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin. parce que seen mat seen yëngu ak seen nekk ñu baax ak ñett nekk ñu mat. parce que lépp lu seen gaas ngeen bëgg mu jaar yoon da ngeen bëgg mu jub. ma ko ma doon fekk may leen ma ko comme comme parti Sénégal comme parti Sénégal yi yal nañu yàlla defal jàmm. amiin amiin te yàlla boole ñu ko. man maa ngi tudd Yaaya Demba Diallo maa ngi dëkk ñu wax njëkk département Linguère mais maa ngi leen wax Fatou Beye. jërëjëf Diallo. yéen ñëpp maa ngi. ñu ngi lay fay lu bari bari. macha allah Ndoye Bane mami macha allah yal na nu bokk ñaan yi ñun. amiin amiin amiin nii la de Ndoye Bane waaw. bisimilah waaw gis nga gis nga li naan mu montre yu baax yi yëpp. ñoo mm-hmm. bokk li nga xam ne heure baal bi baal yoo bi dégg nga. baax yëpp <laughs> ñoo bokk heure wax dëgg yàlla montre baax yëpp bokk heure. te ñaan yi nga xam ne moom la Sénégalais yi ñaan ñiy woote te mun ñoo dugg ak ñiy dugg ñëpp. vraiment ak waa bitim réew yi tamit. Mm-hmm. xam nga dajo dafa metti nekk bitim réew di seetaan lu mel nii. Euh, muy nekk sa réew. Mm-hmm. wax dëgg yàlla dalay dalay tiital. ma leen xamal ne tamit jàmm rek moo xew ci réew mi. wax dëgg mhm. yàlla mhm. lii nag ndogal yi nag mënul ñàkk ndax dëkk yéen nekk yenn saa yi yenn saa yi inondation yi am fa mhm. yenn saa yi tremblement de terre am fa yenn saa comme ni muy xewee ci yeneen dëkk yi rek lay xewee fii yàlla moom mi fépp la ne léeg-léeg léeg-léeg waaw mu yëngal fii léeg-léeg mu yëngal fee inondation yooyee nga wax itam ñun itam dafa am moment yoo xam ne doonu koy dund waaye bu doon balaa nu koy dund lañu préparé wu. Mhm. amaan na bu dikkee dana am lu mu. wàññi dina da ngay nekk ci koñ sax gis canalisation yi am ay problème. yàq ay mbir yoo xam ne buñ ci mhm. teeloon. jub amaan na du nu daal nañu jël ki ci nañu jël ki ci liñ bi ndoy ban jël ka. allo salaamaaleykum. allo waaw salaamaaleykum. sëñ bi bu baax. ñu maa ngi wootee ci bu ko tax di sant borom bi tabarak wa taala ci rawal yi mu def. Mhm. alhamdulilah ñu ko ci sant. ñaan itam ñu ci loolu na sama borom xare àjjana yàlla na ko jot. amiin maam ci benn xalaat nag. Mhm. ma bëggoon daal euh, comme affaire bi dañ koy def chaque année. yàlla def na ni àll boobu dafa bari ñax mhm. ñu war a mën a jël lu mat deux kilomètres carrés yoo xam ne dañuy jël ay pelle mécanique buñ ko yëgatee ñu gradé àll boobu yëpp mhm. yëkkati ay suuf jël ko ba mu war a mat fatolu cinq mètres ci kaw mhm. bu ko defee lu jógeeti ci àll ba ñëwee du mën a dugg dëgg la parce que loolu yëpp ci kaaraange la bokk ndax comme àll boobu dafa bari ñax ci àll rek ak ñax bu ñu jëlee lu mat deux kilomètres ñu gradé ko. Mhm. ba mu leer ñu ci suuf sa ñax ma fa nekk lépp. yàlla mhm. ay suuf mu wër lu war a mat cinq mètres ci kaw. Mhm. ba lu jógee ci ci àll bi bu ñëwee bu tàkkee tam du mën a expliquer ci mbooloo mi. dëgg la ndax mbooloo mi surface bi ñu jël boo ko seetee ci deux kilomètres lay lu war la un kilomètre bu ñu xàllee lu mat deux kilomètres nag ñu fàkk ko ba mu leer. ñu jël ay pelle mécanique def suuf mu wër ñu jal ko def ko ay jal ba mat cinq mètres hmm. bu ko defee bu safara jógee te fu mën a jóge tam dugg ci mbooloo hmm, hmm. dëgg la waaw loolu daal laaj ci am xalaat bu ko defee suuf si buñ ko jalee ba pare ñu jël ay oto yoo xam ne seetal ne la arrosé indi na lu am solo ah, indi na lu am solo mais président maa ngi dégg maa ngi dégg waa rafet na mais maa ngi dégg président di wax ni dañ koy defar mm. dégg naa ko suba biig seetaan naa président moom moo koy wax seen mm-hmm. sëñ baa ngi toog fan yi jël nga président de mbaa du da ngay gisee ak moom in petto non bëgg na maa gisee ak moom waaye gisee gu ak moom waaye ginnaaw lii da ko wax ma dégg ko mm-hmm. waaw waaw ah, il faut ma jottali ko dani tontu nga sama laaj bi voilà noonu tontu naa la <laughs> président ku bëgg gisee président fii ci réew mi mm-hmm. mais mais y a une chose. la ma kilifa doon xam nga xam nga dafa am lu ñuy def ñun sénégalais yi ñi mel ni Eva. waaw dañuy wax diw gisee nag président ay koppar gam ko jox. il n'est pas dit que ku gisee président rek am nga koppar. il faut que ñu xam ko yow mën nga gisee. tey bu boo dee sama mbokk bu ma yëgee ne président dalal na la. Mhm. maa ngi commencé di la bàyyi xel. mais du ne président. non non danga naan danga naan commencé naa laa def li yàqu mbokk ko xarit. lu ko yàq bisimilah dama lay yan loo attanu te loo ma yan ma teggeeku ko. ah kooku koy yàq mbokk ak xarit xam nga mën ngaa gisee président président te fekk yow sax la yóbbul président mooy jariñ président di. ak ay dëgg. te moo fi bare am na kuy dem ca président tuut sa mu dëgg la muy bopp bu la ñu jàpp ne na dara nekku ca. su toogoon ak loo xamante ne bu élection dellu see jarul muy campagne. et c'est vrai da ngeen a nekkoon di wax. waaw xam nga sénégalais dama la ko wax barki dem ma toogee fee ma ne la. Hmm. sénégalais day yenu paanu ndox ba pare jàpp ca di ñaan potum ndox bu mu naan. déggal li ñuy lor ñoo koy créer sénégalais mooy créer musibaam dafa mel ne ñun jàmbatu dafa dem ba dafa bokk ci ñun hmm. sikkee dafa dem ba dafa bokk ci ñun donc ñun dañuy créer lu ñu mën a jàmbatoo dañuy créer lu ñu mën a sikke Eva dëkk ci koñ bi mu wóor la ne égu bi am ndox la mën a jàllale ah. nga jël sa derub xar di ko ca dugal wala sa xar mu dee ndax la ndax ne dangaa ngénte ba pare hmm. wala danga tudd ba pare wala koñ bi dañ doon jàng wala dañ doon leneen hmm. nga jël sam xar mu dee ne ko ca yoom defar sa mbalit ba pare yow mu wóor la ne oto mbalit baa ngi ñëw mm. sachet poubelle yaa ngi nii ci grande surface foo dem jënd ko fa mm. matatul sax mille vingt cinq xaw ma lan mm. nga bàyyi fa loolu yëpp yónni sa jànq bu tàyyeel ba mel ne man mu ñëw ne nii ne nii ubbi kii ba ne fa këpp mbalit ma dem nga toog di xaar yow koñ bi nga dëkk jéemoo fi dara dëkk ca dëkk ba boole kook defar dëkk ba la wax bu baax bu baax yow amoon lenn looy jox sab koñ loolu da ngay laaj koñ bi moom lan la la war lool yow fi nga dëkk doo fa jéem dara beneen bi ci topp mooy da ngay dëkk ki politicien man bala nga maa laaj sama réew da ngay mën dara ci koñ bi nga dëkk da ngay dëkk ak ay politiciens ñu ne ñoom dañoo yoroon réew mi ba bàyyi wala dañuy xëccoo pour yor réew mi te yow suuf si nekk foofu dong mënuñu koo dindi te duñ ci fay lu ma tub 1 million ki mënta defar koñ bi mu dëkk di jaar ay doomam di fi jaar ay dëkkandoom di fi boo ko joxeem réew nu mu la koy defal du la ko defaral da ngay njëkk a bëgg li nga am ba pare soo koy laaj leneen ñi soo koy di la ko mën di jox waa koñ bi su fekkonte ne dañu faa dëkk mhm. ndooy baan dëkk fa ndooy baan kat ndoy baanum wareef la ndoy baanum xalaas la ndoy baan mii ñëw daal ne man tey indi naa cinquante mille francs xam naa Eva maa ngay dem ci Eva Eva indi cinquante mille ñun ñëpp ñu bokk dëkk ci koñ bi ñu jëndee ko ciment jëndee ko ay kii ñu pavé tuuti ci koñ bi dinañu wàññil suuf dinañu wàññil leneen ak leneen ngeen nekk ca ba keneen fekk leen ca mais dangay ngay gis politicien bu dëkk ci koñ bi bañ na ko ba bu rombee waa koñ bi sax far bëggu leen a nuyu ndax jàpp na ne bu ñu amee soxla diis ko ko wala kenn dina ko ne abal ma sa oto ma yóbbu sama malade hôpital dama ne man nit ki boo ma jariñul ca ba ngay laaj la nga soxla boo ko yoree doo ma jariñ dara réew mi daal li fi nekk mooy falu fuy fàtte folleeku torox ñaata F la ñeenti F la ak benn ñeenti F eh, li li mu wax am am na solo am na am na solo ndax nee na boo dëkkee politiciens yi da ngay gis ne daal hmm. eh, léegi saay la ngay xaar ci ñoom doo doo ko gis day wàññeeku loolu loolu ñi koy def mooy ñi def politique métier dafa am ñoo xam ne dañoo jël politique def ko métier. Mm-hmm. waaye mais soo jëlee soo falee ki nga xam ne dafa am métier ba pare di fayee ko salaire ba pare di politique kooko neex mm-hmm. kooku soo ko falee mm-hmm. dina jàppale waa dëkk bi. jàppale waa ki am as tuut ca ndorteel am dara. toog ci dara góor ci dara ba pare ba di laaj politique kooku du du du dundulu ko te du dundoy politique bi mais su fekkee yow yoroo dara. politique bi nga yaakaar suñu joxee ay moyen politique pour campagne ci nga yaakaar ak dund kooku soo ko joxee réew mi wala soo ko joxee koñ bi koñ bi yëpp lay jaay c'est ça donc nit ñi dañ dul ràññee am na ñoo xam ne suñu politique yi dineen dund suñu di dineen dund oh. donc ki nga xam ne nag su politiqueul du dund kooku ñooñu ñoo bon ci société bi politique du métier nañ wuti métier ba pare donc dama koy toujours étudiants yi am na étudiants yoo xam dañoo bàyyi seen njàng topp politiciens yi donc loolu lépp don ci kii la euh, ci ci ci ci politique daal mooy nga defar conseillé woo leen loolu maanaam nañ dem jàngi soo jàngee ba am sa lijaasa am sa diplôme am say liggéey mm-hmm. métier ba pare nga dem politique yi waaye amoo diplôme ya université nga nekk amugoo benn génn goo fenn mënugoo benn métier bëgg a politique mm-hmm. la ko joxee yow yaa fiy créé tabax loo xam ni après day daanu kaw nit ñi muy ay catastrophe yow lañ fii yow yaa fiy nekk soo euh, soo waxee loolu sax dañuy daal di taxawaat ci tabax yi ndax nee naa dañu nekk ci njaal waaye dañu nekk itam di wax ci li nga xam ne daal mën naa indi loo xam ne sopp na ko waaw mbir mi loolu la ndax léeg-léeg nga romb étage yoo xam ne dëkk ca étage waaye ña koy romb xam nañ ne étage bi jaaduwul kenn waru fee dëkk mhm. nga bàyyi leen ca kër ga ba mbir am njombe am mhm. nga daal dikk ne dangay defar léegi say nga gis kuy tabax ab euh, benn balcon doy baan mhm. balcon bi ca année soixante quinze ya ma juddoo ko gisal ca la ñu koy tabaxee jékki-jékki di ko defar di ko raax di ko raax di ko raax te kër ba dara baaxu ci fondement ba yàqu na ci ci bi la ñuy ne bisimilah salaamaaleykum aleykum salaam hmm, bisimilah ñu ngi sant yàlla bu baax macha allah. waaw bëggoon participer ci seen yow rek yow rek la noo déglu. Ah, na ngeen def. ñu ngi sant yàlla eh, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. ñu ngi lay fay <laughs> mhm. euh, mam yi. maa leen di nuyu. ndeysaan sant bi moom macha allah. ndeysaan mooy sama ñaareelu yoon may woote. yàlla bu mu doon bu mujj waaye. ngeen di tàmbalee ak ngeen jëmee yëpp. macha allah kii ñi ngeen tëralee ñii ngeen wax nii tamit macha allah. ba gannaaw bi ma jaalee sunu mbokk yi waa Medina Gunaas yi. Mm, mm. Eh, leen ñaanal ci ñaanal ñi way daw ñi na yàlla. yàlla xaral leen aljana allahumma incha allah yee leen ca aljana yi gën a yi ñoom jaamu yàlla lañ fa defe woon am nañu am nañu yaakaar ci ñoom bu baax mm-hmm. macha allah lañuy ñaan ci dëkk bi tamit macha allah yal na yàlla def lépp luñ fa ñaan yal na yàlla nangul leen ko li ngeen wax lépp dëgg la ni man damay ragal nit ñi politiser affaire bi ba ba ba indi fi lu nga xam ne xamuñu lu mu doon. Mhm. ndaxte lii mbiru yàlla la. yàlla mhm. moo ko indi yàllaa ko def. bu baax Makka jàll na fi. Mhm. bato la Joola jàll na fi. bëri na fi. lépp mbiru yàlla la. yàlla moo ko indi ndax bu doon te ne tey sago sëriñ bi euh, def kii bi. kenn du fa am benn. wokk wokk ah waxuma la nag ba fay ba fay ba ba bakkanam fi jóg. kon loolu ñëpp ñaanoon. dëkk bi mhm. ñëpp ñun ñëpp loolu lañ ñaanu mais nag yàlla moo xam lu muy dogal mhm. moo moo def nii mu defee mhm. kenn mu ci dara ah, kon nag dañuy ñaanal ñooñu te gën a tegu ci sunu kilifa yi ndax teg ngeen léegi ñëpp famille religion yëpp ñuy jaale ñun tamit noonu la ñu war a def jaale taw wax ju rafet bàyyi affaire ngeen mujj wax nii ci affaire euh, kër balcon yu daanook ak yooyu yëpp ci ci ni ngeen koy waxee macha allah noonu la nit ñi dañuy nit ñi daal dañuy def lu nga xam ne ni toujours yàq lay doon. Euh, am bu ñu xam nu ñuy nu ñuy defee daal. Mhm. Sénégal. Mhm. dëgg la ñu changé wul bu baax sama attitude danañ mujj ba danañu mujj am. musiba yàqute yu bare euh, noonu. lu dul noonu yéen daal vraiment fii ngeen ko teg noonu la seen émission yi yal na leen ci yàlla jàppale amiin yàlla defal leen xéwal bu bëri incha allah a ubbi seen wërsëg gën a ubbi seen i seen euh, émission yi ci loolu waaw man bi mooy sama troisième fois may participer yàlla bu mu doon yàlla bu mu doon bu mujj incha allah waaw yàlla defal nu jàmm nama yàlla di may toujours may participer amiin kontaan ci yéen lool tabarakallah macha allah yow moom sama benn xarit nga nuroo xew lool moom laa lay boole wax sama xarit bi dafa génn àdduna ko ko ko ñaanal tuuti wallaay ndeysaan ramañang la tudd dee ko ñaanal soxna ramañang dama la koy xoolee tout le temps ndeysaan ndeysaan ndeysaan doy baa moom macha allah jërëjëf jërëjëf yàlla a yokk incha allahu taala jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf xaritu jàmbur yal na yàlla defal nu jàmm te ñaan ñu bokk ko ñu ngi doon wax ci ci kër yi da dikk ci kër dëkk fa Euh, léeg-léeg sax boo dee fay fay ba matul faf yaa ngi ragal ne borom kër gi. defaral fii. bul xool ne fay ga sax moo motagul moo tax waxoo borom kër gi defal defaral lii. Mhm. nga dëkk ci kër gis mu fissuré wu carrément kii boo ko toppee gëstu ko. xam nga ne lii ci daanu sa kaw la la jëm. xam nga da yooyu nañu dama indi ñaar yëf. non non da nga indi ñaar yoo xamante ne. ah lay indilee. daanaka mooy indi lii. Mm. te nañu war a waajalee lii noonu la ñu war a waajalee. muy muy mm. inondation yi. Mm. nawet bay daaneel kër yu bari. guus. day guus daf ci am suuf soo xam ne day dox suuf si day dox. donc bu fekkente ne yow seetoo suuf soosu. Mm-hmm. lu dul ne yow da nga xëy rek yàlla mënee la gan nga ñëw tabax daan ne man damay tabax pour luwe dëgg la wala nga ñëw lijjanti lijjanti daan ne man daal naa xuloog maçon pour am fu ma dugal sama njaboot. Mm-hmm. xuloog maçon baax na waaye aar njabootu ko gën. nga ñëw jënd sa terrain ñëw taxaw rek daal di tabax. très bien taxaw taxaw tabax boobu. waaw tegal baaraam rek jël ki ci ligne bi dellu si waat. asalaamualeykum wa rahmatullah. Mhm. maaleykum salaam. sëriñ bu baax bi ñu ngi lay nuyu di la ziar. si maa ngi lay delloo ziar lu bari ak di la dalal ci sa mission wareef. waa Jibril Sène la. sëriñ Jibril Sène ñu ngi lay ziar. ñu ngi doon ziar ngi lay fay bu baax. ak ñiy teewlu TFM ñëpp. Mm-hmm. jërëjëf. Euh, di xamal ne. Mm-hmm. li am képp kuy sénégalais. Mm-hmm. metti lu nga ko. dëgg la. waaye yaakaar naa quatorze millions sénégalais yi amul ci benn sénégalais boo xamante ni rek jëlul li teg ko ci ndogalul yàlla. yaakaar naa bu mbir mi amee ba tey kenn déggul benn sénégalais bu ne ma sàmbaa ko créé ma dembaa ko kon yaakaar naa bu ñu nee bu ko politiser aussi. yaakaar naa politicien bi carte d'identité sénégalais la yor. Mhm. am na droit mbir am mu jóg jaale. Mhm. Mhm. mettitlu ko ni ko ñëpp di méttit loo. je vous prends en témoin ban sénégalais ngeen déggagul ban politicien rek bu jël lii wékk ko ma Samba wala wékk ko ma Demba. amagu fi. buñ jël aussi politique def ko peste. man mii di wax ak yow politicien la. waa am nga métier bu politique mais ba ma juddoo ba tey musuma am ndomba tànk politique. Mmh. musuma fayeeku salaire politique. cent mmh. francs politique ku ma dëgg rek ñu may ñu bëri xam nañ sama kàddu. cent mmh. francs politique musuma ko lekk. waaw. moonte tey jii lu mu gàtt gàtt juróom benn fukki sénégalais maa ngi leen jël di leen liggéeyloo te maa ngi leen di fay. c'est bien ah, kanam jëm. kon du politiciens yëpp ñoo ñoo ñoo nekk ci bi bu bon bi. ñëpp mënuñu yem. li Ndoye Bane wax dëgg nag dëgg la. politique du métier. chaque jour ma wax ko samay mbokki politique. nit ki foog nga am loo xamante ni ca ngay jëfandiku suba ngoon gu dégg bëccëg di ca liggéey di ca am sa dépense pour mën a bañ a jaay sa morom. pour mën a am ca weccat ba mu yor. Euh, bu loolu jàllee euh, mbir mi aussi du ñàkk tamit xam nga comme dañoo jël suñu réew dégg ko nit. bu mbir amee ñu neex ñu raf ñu mettitlu ko et tout mais ñu ne nañ def vigilance. nañ yokk vigilance bi parce que kenn bëggul lu mel ni di fi amaat. wallaay. je pense que ne débat bi du batolo Joola jaaroon na fi wala leneen ak leneen jaaroon na fi rek di tur di xoole mhm. je pense que ne lu mel nii su amee chaque fois dañ ci war a jël jàngat mhm. xool ban évolution lañ war a am ainsi de suite pour ëllëg lu mel nii bañ a tee am mhm. <coughs> man Médina Gounass 96 laa fa commencé dem Médina Gounass bi muy am gendarmerie ci sama kanam la parce que dafa nekkoon dëkk boo xamante ni lu dul diine diine dong moom lañ fay appliqué ba ñoom seen maanaam seen yoonu bopp sax la ñu am am nañ seen i avance su bopp lu ñuy wax nugu baax moo ñuy wër dëkk bi di xool ñuy jalgati diine ñu koy rafetlu. Mm-hmm. mais amoon na fa charia bu fa am boo xamante ni gis nga suñ maanaam ñi fay dem ak ñi fa dëkk suñ ko continué woon di ko dund rek problème mën na fa bañ a am gendarmerie sax koon bu bopp. Mm-hmm. jërëjëf xam mhm. naa ne ndeysaan moom itam ku yàlla def mu xam Medina Gunaas na ndax mhm. loolu muy wax fii amaan na ñu ñu toog umpale nañ ko waaye mhm. dafa déggoowul ak soxna soo su génn tuuti ci sama gis-gis sama entendement soxna si dafa ne bu nu ko politiser maanaam bu ñu fa dafa artu noonu la ko wala fay waxee dafa artu moom ca boppam ba mu waxee ba daanal ba ma ngay bëgg ni roog soxna si wax amul amul soxna si dafay wax ne bu ñu ko bu ñu ko mës a déggee ci ay kàddoom moom mi royukaay la. na ko xale yi roy. dëgg la dëgg la ndaxte dafa am métier employé ay nit. ba pare di politique. loolu dañ ko ciy félicité. dëgg la mais kaaw Médina Gonaas bi am na ay politiciens yu ciy forox ndollu di ci wax yeneen i wax. c' est pas le moment nit ñi dañoo nekk déy. maanaam daf cee jot a am tuuti. waaw am na ci am na ci man damay suivre presse bu baax. waaw waaw ma euh, mën na am mbir moo xam ni. dana am ci dëkk bi te ñii duñ ci ut fun ca waxee ñii <laughs> am yow jotaay gii fii sax xanaa bu nu too sàgganoon léegi ma lingeer kura ba jaan ba toog fee naan mami lingeer déet da ngaa defee ni bul waxee nii del kile <laughs> xam ci àdduna la bokk tey benn inconditionnel do ndooy baan mais yow lu la neex rek lay gis bu mbir amee mu kii en ta faveur bu leneen kilee mu daal ne nañ ko buux kale ku àdduna moo tëddee noonu waaye loo ciy dox rek na ko dox ak full ak fayda ndax full ak fayda moo mën lépp ba pare ak dëgg sama yaay da daan wax naan. waaw li leen di arrangé. waaw moo may dérangé li may dérangé. moo leen di arrangé. moom la ñuy wax réalité wu nit ñi. Uh-huh. opinion wu nit ñi mën a bañ a doon sa réalité. am na ci ñoo xamante ne fi mu toll nii. <laughs> bu réew mi ne teg lépp nekk ci jàmm. arrangé wu leen. wu leen bu lépp dee boy. Mm. loolu da leen di déranger. man nag pour man sama réponse daal Linguère. Mm-hmm. devant benn fait bu am. Mm-hmm. am ñuy jéem di ko rendre politique wala dara. Mm-hmm. yooyu maanaam ci ki nga xam ne moo toll ca euh, bërëbu dogalukaay ba war a def. lu palpable. yooyu wax doo ko topp. da ngay def li nga xam ne xam nga ne lii mooy concret mhm. dafa am benn moment boo xam ne boo deful lu concret mhm. di déglu ay ay ay ay ndaw ndawaay mhm. waaw détails yi daf lay yàqal xam nga nag xam xam nga problème bi mooy tonneau vide rek ñooy def beaucoup de bruit et il faut les laisser faire leur bruit waaw mooy yow bu fekkente ne amoo dara loo wax ah. soo amul njoowaan ah. sa papa garab goo wéeg ah. ku njoowaanu ku nga ne ko xaaral ma ñëw ba max la nga daanu bi dañu nekkoon fa am solo <laughs> xam nga man danaa def lépp ba mu des xuloog mami lingeer fi léegi yàllaa ngi lay jàppale day am mës naa am mës naa am sama benn cousin boo xamante ne daf naan bala ngay xuloog ma bi eh. fekk ko mu toog nga dagg ko waaw waaw nee na ba ne waaye li yow daal la gën nee na waaye moom li ko jaaxal mooy boo ma daggee benn bu ma la daggee maa jéeri est-ce que doon nelaw tamit eh, kon na ma bàyyi doodu rek maa ko ciy nuyu xam nga tamit dafa am loo xamante ne mooy que mag du yenu ay dàllam di dox ci ay naxam mm-hmm. te magum guddi ku ko dajul mu war a daj boppam Eva mm-hmm. c'est pas parce que man mm-hmm. dama dul nangu ku ma saralee jombas xam nga sama mbokku ivoirien dañ naan doo lekkee sa kaani ci sama gémmiñ mm. man c'est pas parce que damaa yoru tuut wala damay fay lu matul mm-hmm. wala dama bëgg fu ma dugal sama njaboot ba tax ma créer catastrophe boo xamante ne mm. su ñëwee du yem ci man kese mm-hmm. nga daal di da gis koo xamante ne dalay lay wóor ne kër gi mu dëkk kër ga nee na ngalañ benn ngelaw moo tee kër gi egg suuf dëgg la mu jël njabootam sol ci man boo ci solee sa njaboot mettiw ma ndax yaa san njabootu ci dëkk waaye nga luye ko ay jaami yàlla yoo xamante ne lenn moo leen teree génn kër gi mooy caution avance commission dafa cher ci réew mi dafay am ñu am problème mënuñu génn wala ñu ngi naan naa wetu fii rek ba ba may am leneen naa xaar yàlla ba yàlla ñëw léegi nag ndogal boo gis bu nekk loxo borom da cay nekk ca biir ah, ngay mm. lijjanti di dem ak a ñëw mm. nga toog ci biir kër gi borom kër gi di encaissé <laughs> am na ñoo xam ne ñi ngi fay nga dem borom kër gi fii dafa toj mu dem yónnee la ndoy baan ndoy baan ñëw indi ñaari euh, benn kilo ciment plâtre ak benn turel tuuti ndox wis daal na ca tey tey tey daal di jël kii bi mancele la di ne la baax na daal di dem nga ne turu bi fatt na daal di toogaat mu taw foofu ubbeekuwaat da ngay jékki kër gi daanu ci sa kaw nga tàmbali nag télé yee rajo yi ñëw wër la nga ne waa gouvernement bi na ma dimbali dëgg la état bee ñu war a jàppale. Hmm. ñi ngi nii ñi ngi nii di sonn. Hmm. Hmm. nga gis ñoo xam ne dañuy dem nekk ci kër ba kër gii ngaa xoolal ñu fi génne woon Medina. dañ teg seen i matelas ak seen kii di yuuxu. na état bi ñëw dimbali ñu. dëgg la état bi gaa xëy na moom moo fi nekkal ñëpp moom la ñëpp di tudd mais nit ki moom mooy dimbali boppam. dafa am loo xamante ne ni yow doo xaar ku la ko defal nit ki dafay sàmm boppam bala ñu lay sàmm. ay wandooy baan waa dafa am sama benn waay. 2012 euh, bi fi président Wade nekkee muy kaas président bi lii président bi laa. nguur gi lii nguur muy kaas rek. <laughs> Mm. ba président ba dem. Mm. président Macky ñëw mu continué kaas. man mm. quoi ah, yow nag yaa ngi kaas lu mu xew. mu ne non koo far rek ah ko koo yaakaar ne moo tane rek. ndekete kooku kooku kooku moo moo moo moo moo gën a kii. man quoi ah, léegi lan mooy sa problème. mun ma noonoo dëkk bi soo fayee ko du des sa loxo pate di man ko looy liggéey. kooku Eva Tra yem charge déglu <laughs> sama mbokkum gardien la. <laughs> man ko foo dëkk mu wax ma ah. man ko ñaata ko nga doom nga am ah. mun ma cinq doom laa am no doom laa am man ko ñaata soxla nga am ah. mun ma ñaar man ko yow kenn defuloo dara yaa ko def sa bopp man ko yow Wade Abdoulaye Wade defuloo dara président Macky Sall defula dara nit ku baax day def lu mu mën yow mënoo yor ñaari jabar gardien nga di fay ko 65000 francs lay fay ko la ni noo yoree ñaari jabar yor 6 doom. te laaj ma lu ci metti jamono yooyu. ba pare di kaas rek gis nga ñu ñu ni mel nag foo leen fekk seen xol day naqadi. waaw nit a ngi dëkk xol ah, bu naqadi booba maanaam ya nga dugg nga nga attanul. moo xam ci nit ak nit la wala ci ay engagement la. Ah. la nga dugg nga attanul. temps yii passé dajawaat nañu mun ma grand. wax nga ma dëgg de. Ah. damaa dugg ci loo mënul man ko nit gi nit soo duggee ci loo mën. rek day woyof. Mhm. soo duggul ci loo mën mënul. ci jàmbaat ngay dëkk. oto kenn dafa am sama benn nit bu surchargé boppam sama ma sonn na maa wax dara de mm. nii na ma soxna awa ma ne mu ne ma booy dugg da ngay dugg ci loo mënul ma ne ko waa bàyyi loolu nu koy faje mu ma da ngay dugg ci loo mënul ndax nga xam yow li nga mën mm-hmm. dana tax nga xam ne yow daal wax dëgg yàlla mm-hmm. lii nga mën maanaam nee na góorgóorlu nga ca loolu mais loolu mais loolu damay dégg même sama yaay damay dégg bu di ko tooñee waaw sama yaay léeg-léeg ma tooñ daan ne daal ma demal sànjaafuloo attanul ci ngay xamee sa liggéeyum ndey kon loolu la ma doon bëgg loolu mag ñi bañ koy wax mooy nga dem defi loo xamante ne yow da lay wóor ne liggéey bii munoo ko wala dara nga ne man damay natt sama liggéeyum nday loolu danga nga koy defee ci lu baax mm. mais xam nga dañu ne gàtt wërsëg mi ngi yem ci xam ñaata ngay am parweer cey ndax calculer nga ko ba mu mat ba pare xam nga nag nit ki kii yuut muy te su waccoo dee te keroog nag waccu nag ki naanu bu rëy gën a yombale ndooy lu muy def danaan oo rek mu tuuru déedéet baal mi da ngeen may baalal yooyu yëpp waaw leen rek ma ma ki ci ligne bi xam naa du ñàkk am wa rahmatullah déedéet da baalal leen ma rek moom yàq na ma salaamaaleykum kooku dem na a Samba Thiam ngay réebe xam nga gis nga Eh. mag bu duggee ci yenn yi ba pare. waaw kenn tegu ko ko moo ko teg boppam. ak ah, ay dëgg. ñëpp nga ca maa nga ca. Mm. ñëpp des nañ ca génn naa ca. ngay dégg ma dool dellu si. ñëpp nga ca maa ca. Ah. ñëpp des nañ ca génn naa ca. yàkkamtee gaawtu rabaxoog talaxoo bu ñu juree doom. déet na mani mani nànk. léegi da ngay dem. ah dama doon waxtaan ñëpp nga ca maa nga ca. ñëpp des nañ ca génn naa génn naa ah. léegi yàkkamti. rabaxoo ak talaxoo yàkkamtee gaawtu bu ñu juree doom rëccu lay tudd. ci nit daal dafa war di def attention ak nànk wuy ma def loo mën wax loo mën boo tëddee ne ngalañ nelaw dëgg gis nga ki nga xamante ne nii wóor na ko ne dafa dem fekk ndoy baan takk na ñaari jabar waa man ne damay takk ñaari jabar waa te yow sa salaire matewu ko ah. nga war a dëkk war a lekk war a naan bu nu jógee ci lépp lingeer ngeen doguma la dafa mel ni góor itam takk mhm. ñaari jabar xam nga Aziz bu jëlee ñaari jabar Pathé day jël ñaari jabar. Hmm. ñaar ñiy ànd. toujours dañu koy jéggante. waa mais ah. ndax Aziz ak Pathé yam wërsëg. dégg naa dëgg de. Aziz mën naa am nañ dégg nag fi may waxee. waaw Aziz mën naa am lay yaayam daa nekkoon jigéen ju nangu. dëgg la. yaayam a daan wuti papa. Hmm. Aziz du wuti. day toog lépp di ko fekk si. Ah. paate mën naa am moom papa ma daan wuti yaayam. waaw paate dina am waaye balaa am wuti ba sonn. Ah. am na ci koo xam ne nag yaayam wuti wutoon denn kenn wut si wu ko woon. moom day daw ba sonn booy jàppal baraada bi. nga bëgg lu ñëpp yanu nga yanu. ci yàlla. ma mi mi miss miss Ndiaye daal koor mbay baaxum mbay baaxum ca Italie nee na kontaan na ci yéen. Miss Ndiaye moom zone A dëkk waaye nag mm. madame Sën Sën Sey nee na da daan def boo dee wax mu ne Eva na noppi rek gannaaw tubaab la ma ne ko duma tubaab bambara la nee na di wax mu ne mami dollil Eva dafay tubaab tubaab bambara la nee na yaa ngi sama xel dem ci sën seen wallaay xam nga sën miinu ma ko mais sën mi ba ne nii mbagg yi noonu loolu jaral dama fay lu dee mm. waaw moom moom ma nga waagu ma nga waagu ñaay mm. ndeysaan en tout cas daal euh, puisque émission baa ngi bëgg a jeex état bi na def la ko war dëgg la askan wi nañ def le leen war mm. parce que askan wi tamit war nañoo wax ak ñoom mënuñu lu gars yi def ñu yàq. dëgg la dëkk bii liñ fi yàq fu ñu branché poto. nee naa la bis bu ne ma wax la ko. dëgg la euh, tali bi euh, soo demee poto poto làmp yi nekk ci àll bi. Mhm. lépp gars yi dajji nañ. wallaay ci fii la jaay dëkk boobu nu muy nu nu naka lay defee. nu muy émancipé. waaw nga dem ci biir dëkk bi. Mhm. Euh, rigole yi mam yi doon wax sànq fi ñuy sànni ay xar yi dee ak ay mhm. xaj yu dee dafa këpp mbalit. kubéer ga un ñëw fekk kubéer gu ñëpp bokk nga ubbi ko jël kubéer ga yóbbu ko feeraay silmaxa yi di dox ba dugal ci seen tànk. jëleetal laa ko gisal lii léegi ay. ak yi Séné ay sénégalais ñoo koy def. catastrophe yi ñuy dund ay sénégalais ñoo koy def ñoo koy créé de. ñoo koy créé. sànni sa xottu banaan ca mbedd ma ngay baan imaginer nit tarxiis daanu. imaginer état daggee sa lañ ba pare jël ko sànni ca mbedd xale foo ca gaañu. voilà naa dina ko waral dina ko waral bu ñu woon nii ngeen di. demee non su ma ñu pellool la. looy dinañ ñëw da ngay ñëw état day dugg ci benn quartier defar ko. wala mm. benn dëkk defar ko ba mu ba mu boy. Mm. ay ña dëkk ca dëkk ba yàq ko dëgg la xoolal soo ñëwee Dakar Dakar soo ñëwee Dakar am na ci canalisation yi ci bari defar nañ ko. Mhm. mais da ngay gis soo soo doon liggéey di wàcc quatre heures du matin. Mhm. da ngay gis gaa yaa ngi débouché canalisation yi. Mhm. guddi gi gaa yaa ngi liggéey di jël ay weñ di ko dugal ci biir di préparer. inondation yi mais loo defar même pas une semaine ñu këpp këpp fa mbalit mais loolu foofu nooy def dëkk boobu nooy def ba inondation di ci du fa am foo jaar mu am fa parce que ñun ñooy créer inondation bi ñu ñooy këpp mbalit fu ñu neex da gis saret yi ñëw di ndem mbalitoo mbalit mbalit mbalitoo mbalit waaw nga jam jox ko deux cent mu yóbbu la sa mbalit borom saret boobu da ngaa xam fu muy këpp mbalit ci àngalu koñ ba xamoo ko ci yàlla xam këpp nag moom mooy ñëw indiwaat foofu mooy boucher koñ bi yëpp inondé yu nga naan état état état fekk état defoon na la mu waroon a def mhm. mais ñun ci boppam ñooy jël borom sare bi jox ko mbalit moo xam ne xamuñu fu mu koy tuur mhm. mbalit mi génnul koñ bi xam nga juróomi kër suñu këppee mbali ca saret ba mu mu fees di même pas cinq minutes wala une heure de nga gisaat ko muy tourné waat ci kon yi naan mbalit mbalit fu këpp mbalit man da wax li ma am envie njaga woo la jox la benn caméra mhm. nga topp du dëgg du yoon xam naa ne comme maa ngi caméra indil comme ay élément bari na dana bare de ndoy benn rubrique du dëgg du yoon ceci n'est pas normal du dëgg du yoon ceci n'est pas normal ma tàggatoo tey da nga mais bala muy tàggatoo dafa ubbi lu am mooy que xam nga daf ne mm. mbalit mbalit mi yow euh, ndax génn na koñ bi waaw mais kii këpp lu ji mbalit mi moom yoonam nekkul ci na mbalit mi génn koñ bi na génn këram moom këram la lijjanti nga dëkk ci kaw nit ki dëkk ci suuf yow nga yow mi ci biir kër gi yow salte nga yow jeeg xamoo li la war mm-hmm. ngay jël say serviette hygiénique di ko dugal ci chaise bi di ci sottim ndox muy wàcc ci suuf di bouché douche kër gi ndax ne lan ndax ne yow sa yoon nekku ci yaa ngi ci kaw mm. c'est-à-dire dëkk bi catastrophe yooyu noonu nit ñi ñoo koy créé nga dem nag douche bi bouché ndox mi wal ci buntu kër gi taxawaalu fa nga ne sama yoon nekku ci mm-hmm. setu ginaar gi ñu nekkee setu kaani xeeñ gi lañ war a ba gis nga jéegu kaani salade yi dañ fee bari nan la seen gaay ngat la maa koy seen yàlla bu nekk bu ruus bi nag ba mu feree noonu ay boo xaree ca lu ne nga ca fekk tus new ca dara léegi yow tàggatool ba suba insha allah <laughs> macha allah na yàlla daal dellu di wax naan ku xamul suur naa dañuy jàpp ca loxo ba wi cat te luy naanu yuur bu egsee ba ci ndokk fa xasal boo bëggut dee mm. waa Sénégal kenn gënul leen waa Medina Gonaas ñi ngi leen di jaalewaat bu baax a baax a baax di leen masawu waat di wax ne lii la àdduna nii la ñun dañu bëgg rek ñëpp bég moo tax ñuy toog di ci waxtaan waaye santaat nañ ñëpp gërëmaan nañ ñëpp cil ma xaa kër Amadou yàlla kayal ak euh, fépp foo xamante ne dëkk naa fa rek maa ngi leen di sant di leen ah, gërëm ah. maam la ca Ouest Foire nag moo ma génne fii suba ak jàmm ma jox leen numéro ndax xam naa ne bii moom xanaa di ngeen ko war a mën a sopp di ko doxantoo dëkk di la solal waaye sama bàjjan Awa Diop kenn du yow sama bàjjan maam sama tante maam Fili Diallo ah. yéen ñëpp daal maa ngi leen di gërëm sama yaay kenn gënu leen jërëjëf Linguère. waaw euh, Ndoye Bane. waaw yow itam dañu lay bàyyi rek nga abrégé tey ndax xam nañ ne ni nga yeewoo man ni nga yeewoo neex na man ma yee. ah non xëy na ndekki lee neex rek. yàlla na ya ndekki yàgg a neex waaye. <laughs> may na ñëpp. waaw di di tàggu ñëpp rek ba ah, ba maa ko payee <laughs> di tàggu ñëpp ba suba jàmm ah di ziar kilifa diine kilifa aada yi xam ni wax dëgg yàlla ñi ngi naqarlu mbir mi. tey ñaan na fi gëj. amiin amiin ah, di di ziar ñi nga xam ne daal liggéey nañ ci waaw mu comme ni ko ko président waxee nii ma ngay dina ci def ay jéego bañ defaraat foofee mhm. su defaree foofee ba pare na ñëw ci sama dëkk ba Pire ndax de soxla nañu bu rafet bu mel ni ba mu defar Tiwaawan dëgg la waaw waa ñun waa Pire nañ ko bisu may nuyu Dada Mbeng nekk fële ca Canada ak ki nga xam ni moom moo di madame Dioum Aïcha Kassé ñu ngi koy ziar bu baax a baax ak ñi nga xam ne ñoo ñuy may ay chaise yooyu wax nu mu tudd euh, Guèye nan Guèye maam Fatou waaye mi ngi góorgóorlu pour yónnee la ay chaise vraiment waaw ci am ñu ñëw ñu ñëw tey ci suba ba couche yi ngay jot ak yëpp waaw maa ngi joxe maa ngi ay couche ak ay mhm. chaise dëgg euh, dëgg pour ñi nga xam ne jot nañu seen mhm. liste mhm. liñ fi am am nañ fi bu soobee yàlla ñu joxel la ko na ko bëggee voilà c'est ça grand Idak moom moo ubbi affaire yi koy sant di gërëm bu baax Idak baax a ajaratu awa sëy ma nga ca Grand Yoff moo goroom Sali Doudou njaay kon boog Sali Doudou Ndiaye nuyoo bi yaay boroom ñu ngi leen nuyu di nuyu sa goro nuyu itam sa wujju ndax àdduna noonu la rafetal la rek ñu ngi mhm. nuyu képp ku toogoon di nu seetaan may remercier bu baax a baax a baax salon de coiffure Ndey Ami Ndey Ami Kor Bouba Dieng merci pour les belles coiffures merci pour les belles couleur na yàlla wéral sa loxo disponibilité bi moo ma neex nu ma mm. neex laa fay duggee nu la neex nga may coiffé yàlla na yàlla fayal ma la incha allah remercier Axlam ma chère amie maa ngi koy remercier pour les belles chemises may boutique ci la bokk képp koo xam ne daal toogoon na du nu seetaan ñu ngi lay nuyu waaye waaye nag itam di la baalu ak ndax waxtaan boo gis bu jógee pour defar am na ku mu choqué ñu ci pour choquer kenn juguñu ci pour frustrer kenn dañuy waxtaan pour que nu mën a jàppante incha mm-hmm. allah papa Samba caam neex a liggéeyal ñu ngi lay ñaanal yàlla defal la jàmm yow itam defal ko sa équipe bu baax baax a baax euh, euh, Imam leen di nuyu bu Mimi Traoré. Ah, waaw ak Manti eh, Traoré neel Mimi maa ngi koy nuyuloo tëgëza bëm moom xam naa dama am sama rakk ju baax ju ñuy wax ndaykan jërëjëf chéri Mouhamed Diop ci États-Unis rakk joo xam ne ma toogoon ba xaaju guddi ma ko woo yónni ko mu dem moom ay yàlla soxna la du pare mukk waaye nu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen euh, wax rek yàlla yàlla defal leen jàmm defal nu ko ñu yàgg fi lool di ànd ci jàmm ak teranga ak ngor surtout ngor mhm. jërë ngeen jëf ba suba incha allah